avons aussi le terrain euh, boulangerie jaune depuis quelques temps nous femmes ay groupe euh, parce que nous avons terrain a pas eu de légalité alors que ce n'est pas le cas dafa am conseil municipal voté en 2014 je pense que document est mettre à votre disposition une euh, délibération une autorisation maire euh, liggéey ak ay ay ay société pour exploiter terrain bi terrain bi di boulangerie zone waaye terrain bi dafa amoon ay destination lu bon manam dafa am ay activité yoo xam ne dañ ko fa war def bu jox terrain bi mairie bi dañu dañ leen wax ne ah mun ngeen exploiter terrain bi waaye lii wala li wala lii wala lii ngeen fa war a def waxuñu ne lii ak lii ak lii ngeen fa war a def waaye bu mun ngeen def ñeent yi yëpp waaye ngeen def benn si yi dans ce cadre-là, euh, avec le conseil municipal, nous avons choisir euh, liguer avec une société. Bon, après, nous proposer un centre commercial dans un premier temps. Nous avons centre commercial, un centre commercial au champ. Nous avons centre commercial, supermarché centre commercial de activité donc si so amé activité Auchan bi da nga nar am activité pour xalé yi xale yu ndaw yi am activité pour le sport dégon len tamit ñuy wax na ne ah mais sport ñun amatuñu fi ñu dem football yi amul fi est-ce que dama leen bëgg a né sport du football cassé am yenen xétu sport yu am té sport du ci mbéd rek lañ koy def sport dañ koy def ci salle donc bâtisse yi ngeen di gis ñu koy tabax dafa am euh, genre sport yooyu yëpp wala activité yëpp bokk am na activité bu xale yi am na sport dina am supermarché boo xamante ne mu ngi fi déjà mooy Auchan dina am yeneen ak yeneen activité yoo xamante ne waa koñ bi yëpp dinañ si mun bénéficier waa suñu insister nee nañ nag nee nañ nag euh, liggéey bi su su continuer lu ci am rek euh, mooy doono ñoom comme tey ñoom ñoo nekk si illégalité nañ xam ne ne suñu ñëwee tamit lu fa am rek mooy loolu